gannaaw bu sante yalla do li sante yàlla bu baax way di sante yàlla mi ñu may katan mi ñu fekke ben delu ci suba di def fataani fajar di wa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi daiman abada alhamdulilahi kaseer amra kulli halin way di julisi yent bi sallallahu alayhi wasallam ak wa kiram ak mi ak kep ko mi yaa ngi toppa si sunnaam bi ba ilaa yowmal qiyaama di ñaan yàlla ñu yàlla boole si ñooñu yàlla ngi xëy jama inde ko fanano ko yàlla mi jàmm yàlla fa jàmm yokkoy sutura yokkoy ñu kàttan yokkoy ñu wér ñi feebar nekk ci kër gi nekk ci lopitaan may aafiya yàlla may aafiya yàlla may aafiya may ko mboolem doomi adama ci kaw julli julliti jiitu àllaaxira yàlla yàttal seen bàmmeel yàlla leeral seen bàmmeel yàlla def seen bàmmeel mu nekk rawdat min riyaadil janna njaboot bi yàlla saamale yaa ego teg la si yoon mu muccal fitna musiba ak balaa seytaan njaboot jigéen yàlla saamale xéewali àllahi ramu coy sabaram mbokk ci lu ñaa fi ci daara muhammad sallallahu salaa wasallam di jangale katu mo bobu yàlla subhanahu wa taala dañu wees alquran ne wama ataakum rasulu fa xuzuhu wama nahakum anhu fantahu yàlla yàlla subhanahu wa taala di ñu wax ak tuliti yi ne wama ataakum rasul mu ne loo xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam indi nañu ko yàlla mu ne fa xuzuhu nañ ko jël wama nahakum anhu fantahu waaye lum ñu tere rek nañ ci jeex tak tak tak nañ ko bàyyi sallallahu alayhi wa sallam bon mbokk juliti yi risaala bi nga xam ne yonente bi nga xam ne moom la sallallahu alayhi indi yàlla yónni ko mu nekk risaala bu islam boo xam ne boo xam la tax mu jóg la tax yàlla yónni ko moom sallallahu alayhi sallam lu tax yàlla tànn ko mu nekk si ngeen di mbindeef li yàlla bind yëpp sallallahu alayhi moo ci gën lu tax yàlla yónni ko yàlla tànn ko pour mu mootale li nga xam ne mooy yonente bi ñu jox muy risaala boo xam ne muy message boo xam ne bu set wecc muy charia bi nga xam ne moom la ko yaa yàlla jox muy charia boo xam ne bàyyiwu dara dara dara lu lu dem si dunde du doomi aadama fekk charia xamaluñu ko charia bi ñëw nekk lu mot waaye charia ñëw pour defal dundu doomi aadama charia boobu yàlla jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw pour defar dundin doomi aadama waaye nag muy charia boo xamee ne mooy tax bi doomi aadama bi egga si daraja bu kawe kawe sa yàlla subhanahu wa taala waaye charia mooy motaloo doomi aadama dundaam xayaatam loo tax bi alayhi salaatu wasalaam si diiri ñaar fukki at ak ñetta moom sallallahu alayhi wa sallam boole na jullit yi motali na li ko yàlla subhaana taala yónni woon ba nga xam ne ba muy taagoo yàlla wàcce aaya boobu muy al yawma akmaltu lakum diinakum yàlla ne ko bés boobu laa motale diine bon chariatu islamiya mot na salaa na ko balaa moo génn lu si waay indeeti rek yokk ko charia boobaa nag dañ ko setaat fan la ko jëlee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jotali na la ko yàlla yónni woon waaye tamit mu jël saxaaba yépp saxaaba yi fekkoon jamonoom yëpp mu jàngal leen ko saxaaba yooyu nag ñooñu jootali diine bi radiyallahu anhum du kenn saxaaba yi la nga xam ne rafet nekkin bu rafet lañ nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam diine bu wér lañ jàng si yonent bi alayhi salaatu set lañ jël si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom saxaaba yi mënoon a yokka yokkuñ mënoon déedéet nañ ko jëlee si yonent bi aleyhi salaatu wasalaam noonu lañu ko doon joxe ñun nag ñu ñëw ba suñ jamono yi ñu commencé nag di yokka wàññi yokka wàññi yokka wàññi subhanallah subhanallah mbokk jullit yi mu ne risalati muhammad nekk lu xam ne dafa émoon si benn xeet rek déedéet yàlla yónnee ko si benn xeet rek si ñëpp la ko yónnee wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas pour ñëpp jinne ak doomi aadama bàyyiwuñ kenn muy diine boo xam ne jaglewuñ ko xeet wala jaglewuñ ko askan wala santa wala famille déedéet islaam ñëw pour ne waaw kër diine nangami diine kër diine kër diine waay waay waay ban kër amul diine kër boo gis am na diine parce que fekk jullit mu ngi ewoo si kër googu rek këri diine la fekk jullit ngi jullit a ngi eh, kër bu mun a doon di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah li nga xam ne mooy baati tawxid mooy kennal yàlla kër boo xam ne am na ku fay ewoo di wax loolu rek kër googu këri diine la waaye déedéet ñun nag suñ gisin dafa ute lu ñu waxee kër diine te islaam amul xaj seen tey suñ doon wax kër diine tey ku dem dëkk mel ni eh, Maaka wala nga ne Arabie Saoudite ba léegi ñu bokk si famille yonent bi alayhi salaatu salaam ñu fa waaye kenn du dem ne fii mooy seen fii mooy ker diine parce que kër yëpp kër diine la ñu bokk si dereti yonent bi alayhi salaatu salaam ba léegi ñu ngi foofu ñu ngi dunda Maaka ñu ngi dunda Madina ñu fa xam nañ leen. xam nañ leen nëbbuwuñ ñu ngi fa di toppatoo seen soxla di toppatoo seen mbir am seen liggéey di dem ak ñëw di toppatoo seen njaboot di jaamu yàlla. boo demee si université bi am na fay jàngale man ñaar jàngal nañ ma si ñu xam ne si deret yonent bi alayhi bokk jàngal nañ ma foofu si université bi. waaye su la ko ni ñoo kenn ñoom duñ taxaw sa diwoo wone seen bopp ne ñoom li fii fii déedéet liñ amal nit ñi soxla rek mooy ne waxtu ñëw na. kenn duñ tardé dugga si classe bi jàngale ba seen waxtu <clears throat> wàcce jot ñu wàcce ñibbi liñ am si xam-xam ñu ngi koy jox julliti di leen laaye biiree si seen xam-xam bon suñ doon oote kër diine xanaa kër yooyu lañ war a dem di di di di wori ne ana ana kër yi sëti yonent bi alayhi salaam ñu xam ne dërëtam dërëtam axalañ amul amul ñu bëri ne waaye nañ seet seen la waaye ñii nag kenn amu si ñoom ñaari xel ñaar yëpp leer ñoom ay sët bi salaa sallam ñu set wecc lañ moo mu ne diine amul loo xam ne dañ ko askane si kër wala si santa wala si dëkka wala si di déedéet inna diina inda allahi islaam yàlla mu ne diine bi ma nangu si kaw suuf mooy islam islam yàllaa ko moom kenn mu ko mu ne mu nekk risaala boo xam ne comme yu ko jiitu yonte bu nekk rek yàlla def la daa yónni si xeet waaye yonte la Muhammad sallallahu alayhi wa def ko yónni si àdduna bi yëpp bàyyiwul kenn amul arab amul ñuul amul ku weex ñëpp waaye bi nag bi di jël àdduna ak li ci biiram yonent bi alayhi salaatu wa salaam li ko yàlla yónni kenn kenn kenn mënatu ko wecci déedéet dafa leer ba pare te dafa mot dafa mot kenn amatu sañ-sañ di ko yokka wala di ko wàññi parce que mot na ba lii yàlla di euh, yàlla subhanahu di jël àdduna ak li ci biiram bon mbokki jullit yi incha allahu si dars bi ñëw nañ ko continuer pour wone li nga xam ne yàlla subhanahu wa taala loolu la yoon yonte la Muhammad sallallahu alayhi wa xam ne ñun dara waruñu xanaa toppa rek toppa si li nga xam ne mooy njàngaleem bi suñ buggee mu ci àdduna mu ci àllaaxira kon yàlla ñu yàlla subhanahu wa taala teg si yoon siraatal mustaqim yàlla subhanahu wa taala xamal ñu dégg ñu xam ko te toppa ko waaye yàlla woo ñu safaan ba ñu xam ko te moytu ko yàlla dafa ñu xeewali àddina xeewali àllaaxira mu ci safara